bu xamee noonu. Mm-hmm. ay go xam nga lépp dara dal la. acam mënu acam amul tus laa wax déglu ma fii. soo ko waxee ni dama lay rey. c'est clair. thank you sinon naka meer amee ah. mu ngi fa ok sinon naka moral bi. ah ça va macha allah. ok ok ok bon disons que j'ai une mauvaise nouvelle parce que dossier bi jóge na laboratoire mais lépp a négatif pour les empreintes là lépp lépp a négatif donc enquête bi commence à zéro. Bah, donc il n'y a, pas, euh, il y euh, de viol de empreinte donc euh, ma wóor la woon tey c'est tout juste dama bëggoon am quelques informations Papis moom laa soxla donc bëgg naa lépp loo xam ci Papis rek nga leeral ma ko sur positif sur le côté négatif sur ses comportements dans papis papis ci lu saaba kii yëpp papis loo papis rek bëgg naa ko xam. papis ak moom Binta ay couple comme couple yëpp leen waaye te papis nit ku baax la am na yaax am na teggin. gisuma dara si moom dara loo xam ne muy loolu nit ku baax la daal. te aussi ku bëggoon Binta la bëggoon na Binta torop waaye bëggoon na Binta doon na ko jàppale si lépp waaw. tey bu mu doon déglu Papis Mhm. Papis daal mënuma wax lu bari quoi parce que Binta laa doon toogal le plus souvent mu may oo Papis naan man Papis nit ku baax la jàppale ma ko comme ni ma jàppee mu doon nit koo xam ne amul benn problème man gisuma si benn problème daaw am contentieux ak Binta du genre ñu jàppante yow fekkee. ah non ah, son ah parce que yenn saa yi doon na am problème ak Binta comme comme tous les couples rek ni ñu amee seeni problème ku nekk toog wetam xam nga mais du yàgg du yàgg après ñoom ñaar ñu nekkat quoi comme tous les couples ni ñu amee seeni problème noonu la woon kase quoi mais gisuma beneen affaire boo xam ne mën na

yow la xew léegi dama am sens interdit ci yow bari yow lan mooy xew bari yow léegi changé nga de gisoo sama absence ñaata laa la woo ñaata laa la message ba dib bi ma demee xamoo ndax maa ngi lekk xamoo ndax maa ngi naan xamoo ndax feebaruma xamoo dara dara dara dara ci man Amadou ah, ak fépp fu ñu jaar man ak yow ñaata année man ak yow yaa tax nag ma ñëw fii nii tey ins bi damaa dëgg samay championnat ndax yow parce que dama la woo ba sonn xaw ma dara dara dara ci loo nekk Bada Bada yow yaa ngi sóoraale suñuy noon ah ak man ñëw naa fi maa fëgg ba sonn ma delloo xaw ma sama papa lan la ma wax ndax yow mais lii bi ma noppi ma encaissé ko ndax foo toll ci man ba jël est-ce yaa ngi toog sa xel di nekk ci man nga yërëm ma yaa ngi gis bu baax ni muy souffrir ndax yow lan moo xew waxal ak man lan moo xew jaaxle naa fekkee dama laa toj nga am loo ma déggal wax nga ma xam. bon chéri bon def naa ne dégg nga ndax boo gisee man di la tey mënoon nañ toog kër gi ñu def lii moom miin nga ko du gan ci yow peut-être gëj koo def la ñuy wax te boo xoolee xuloo yii mer yii amul sens donte c'est normal c'est couple parce couple boo gis tey mu neex subaa mu naqari mais saa yu naqaree nañ suur bànneex bi ba bañ a wax lu ñaaw juboo ko su xam daan su neexee it nañ suur ne subaa mun na naqari te dama bëgg nga xam benn affaire dama la taamu nga nekk sama soxna takk la andi sama wet et puis bëgg nga may jàppale di ma kafal di ma fowal di ma reewal transmettre ma amour bi nga xam ne moom laay xaar ci yow parce que góor bu nekk su sañoon soxnaam di nekk ci wetam te maman il faut nga xam benn affaire gis nga la plupart ci sëy yu bari ngay gis ñuy dugg rek takk tey subaa ñu tas wala coow yu bari ba mu jaral leen ñuy dem tribunal mooy communication bi te sëy bu ci amee ku ci nekk rëy am ci sa diggante ak sa moroom rek du baax que soit ku góor que soit ku jigéen man nag yàlla leen la ma dimbalee mooy rëyuma surtout ki nga xam ni sama soxna la su ma tooñee damay am oyof mat ku toll ni jubbanti ko ndax yéen ku leen topp du nekk ak yéen. ma parce que ni seen ween yi sëggee noonu seen bopp yi sëggee. Mhm. ma bëgg nag bon nga baal ma àq nekk à l'aise parce que aw ma kersa mhm. war a baal. parce que amu droit sax di wax di ci kaw mais bu gisee ma def ko dama meroon mais ci sais que tu es l'homme de ma vie donc euh, bu ma lay def yéene tamit eggu ma fenn. non sax nga ñàkk parce que ci sëy parce que ñaar ñooy ak Lamine ñoo dëkk dañuy ñaar ñoo xamante ni ay nit lañ. c'est normal mais nag bu muy yàgg xam nga moo gën a neex ci xul. Hmm. <laughs> comme ni tey. Hmm. man xam nga ma jaaxal. dañ naan violence faite aux femmes mais yow moom violence faite aux hommes moom nga def te mu wóor na tey jii su ma la seetaanoon nga dal sama kaw xam ah, da nga buggoon dóor. yow mooy dama la waroon dóor benn chaise nga xam. yaa yow ma def naa baax bu baax la laay dundee. nga ma merloo xool ma jeexee yërëmoo ma sax bëgg ma daan xool. parce que. ma ko xoolee gis ma toog bi lu tax daa aw ma la ah, ah kon yëg nga ko. waaw bon xam nga da nga war a bàyyi. sant. naa sago ndax yaa am tool. bon de toute façon sant ayca. ok. bon soo dugg la ko bëggoon yombalal rek. kii moom bee bee yow man maa la war a jox rek. waaw loolu moom tàmbali ñu di ko def. mon cœur, là où le maître